salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet yéen ñi di seetaan seen seen bi di suñu xalaat TV tey dag ñu ngi fii si Thiaroye ñëwoon dalal suñu frère seex Fall nekk ci écurie Grand Yoff mbooloo di frère ci Nandi Fall ak Ndiol Waalo Cheikh Fall ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu la bàyyi nga nuyu sa mbokk mbokki internet yi seetaan seen seen bi di suñu xalaat TV. Euh, asalaamaaleykum ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur ñaanal suñu waajur bu jigéen yàlla xaaral ko àjjana ñaanal suñu waajur bu góor yàlla suñu borom xaaral ko àjjana ci barke Seydina ma ñu ñaanal képp koo xam sa waajuram fi yàlla bàyyi ko fi mu gudd fan wér gi yaram en même temps tamit nuyu waa Xalaat TV xam nga benn si boo xamante ni vraiment si bu ñu ràññee la ñu ngi gis commencé gis ngi def buzz ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen borom yokk seen koom-koom yokk seen mën-mën. amiin amiin ba yàlla may leen ay wér gu yaram ba ngeen mën a def ba ngeen mën a am ay télé ci kàttanu yàlla. amiin amiin ñaan di barke seen amamat. amiin amiin waaw ñu gis si instant yi nii affiche bu mag mi ngi ñëw fii si dimanche bii di ñëw. di dox si diggante Papa Sow ak euh, Siteu bu Lamsar ñu ne laaj combat boobu noo ko gisee. ah ok euh, waa sa xalaat TV waaw moo euh, loolu wax ngeen dëgg parce que lamb la boo xamante ni lamb bu doy waar la waaw ah, gis naa ne lamb mystique la gis naa ne lamb déclancement la déclenchement na ci côté Siteu lay doonee confirmation boo xamante ni tam pour war dem ci kaw VIP bi ci kaw Papa Sow lay doon waaw kon mu nekk lamb boo xamante ni macha allah. Euh, bu ñaari mbër yëpp pare daal ci état moom làmb ji neex lay doon. dëgg la voilà. noo gisee ñoom ñaar seen état kan nga kan nga kan nga yaakaar ne instant bi moo gën a entraîné ak euh, forme seen forme yi noo ko gisee daal. waaw en fait que Papa Sow euh, gis naa ne bu mu jëlaatee combat bi la gën a am destination ni par rapport ak bu njëkk ba sax man bi mu jëlaatee maanaam combat bi nga ko tëggaatee. dëgg la la gën a am destination la gën a gis moom la gën a pare bu njëkk ba. mais Siteu moom tamit ci sama côté li ma gis ak sama analyse. Mhm. moment bu mu toll nii nii nii bu njëkk boole gënoon a pare ni bii. ma gis am gis naa yu ay manquement yoo xamante ni mi ngi feeñ ci loo xam ne neexul gis quoi day nëbbu yaramam mais nag gis naa daal bu njëkk ba la gënoon a pare ni bii. Papa Sow bii la gën pare ni bu njëkk ba mais nag lamb nag lamb nag reer a ñàmm la kenn xamul fan lay demee. dëgg la dëgg la kon tey kon daal comme ni nga waxee rek comme gis nañ ne ñaari mbër yi ku nekk yaa ngi ci Euh, tey jii combat bi ci lan yaakaar ni la mu war a gën a mën a jeexee ci xeex wala ci bëre. waaw combat bi euh, ku xef nag ku xef mun nga bañ a gis mun nga bañ a gis jël bi. Hmm. ci kaw benn affaire. Hmm. si Papa Sow dirigé combat bi ku xef ku xef nga bañ a gis jël bi mais tey bu lu combat bi fekkee Papa Sow diiréew ko maanaam euh, gaawalul combat bi. Hmm. dina doon lamb joo xam ñëpp nañ ko mën a gis mais boobaa dina mën a arrangé tam waaw. kon daal da nga jàpp ne daal lamb buy gaaw Papa moo koy gaawal. waaw buy gaaw daal Papa Sow koy gaawal. te bu su gaawee loolu fekkee dafa gaaw a ci Papa la gën a amee mi sens bu fekkee da làmb ji xam ne dañ ko dafa yéex Papa xaar ko Siteu ñëw wala Siteu xaar Papa Sow làmb ji di yéex a démarré Siteu lay gën a arrangé. waaw ah, kon jàpp ne xeex xeex dina bëri ci combat bi. non non non combat boobu du bëri xeex combat boobu du bëri xeex fii kay laa la ko waxee waaw. mais bu fekk bu fekkee am na tey kan jàpp ne moom mooy doon bu dee xeex am na tamit euh, jàpp ne dafa nekk xeex boo xam ne pour pour pour pour rek euh, kii la feeñ la buntu feeñ pour buntu feeñ. mais man maa la combat bu am nekkul xeex bu ñuy taxaw di sàmmandoom combat bi combat bi di yàgg déedéet. munul nekk. la ma tax nga wax loolu. waa parce que dama xam Papa Sow. Papa seetaan naa ko ay combat moo Cheikh Ngiraan Papa Sow seetaan naa ko moom Lac de seetaan naa ko moom Zos Papa Sow seetaan naa ko moom Baye Mandione muy bëre xam naa ko bu baax a baax te li ma gis tey li mu fas yéene pour moom Siteu li mu bëre woon ak Baye Mandione dina ko indi li mu bëre woon ak Zos dina ko indi li mu bëre woon ak Lac de mais da ci am defet dina ko indi boo seetloo daa dox ci kaw Lac de daw di ko jël Lac de Guiers remplacé ko dal koy taf plaqué mais combat bi man gis naa loolal Papa comme ni ko waxee rek comme ni nga gàmb làmb bu gaawee ci Papa Sow lay gën a arrangé mais instant bi lan nga yaakaar ñoom ñaari mbëri kenn ku ne bu ko defee dina ko arrangé merci waaw loolu moom li laaj nga mu lu am solo laaj nga mu loo xamante ni maanaam loolu mooy laaj ma neex la quoi ci làmb te làmb ji bu gaawee lool lool bu amee une rek song ñu bëri taf Papa Sow lay gën a arrangé parce que moom loolu mëninam la te fooram la mais bu amee lamb joo xamante ni amul loolu kon ne da ngay xaar sa morom wala soit lamb joo dañuy léewtoo tuuti pour doog a xeex pour bëre Siteu lay gën a arrangé parce que bu amee benn songu jël amuñ amaat ñaari songu jël amul a arrangé mais bu amee benn songu mu war faa jeexal Papa Sow doon waaw xam nga Siteu sax gis nañ ko ci conf ki open de presse mi wax naa lamb ji benn joo doon kon yaakaar naa ne moom pare na moom pour combat waaw waaw loolu tamit loolu maam boo ko déggee kii de quoi la slogan ñoom ñoom ñoom ñoom waaw. Euh, jàmba gën yi tarkindaay jàmba gën. waaw dañ koy wax. da ngay dégg ku mel ni euh, euh, Laurent Diago da koy wax. Mhm. ku mel ni kii da koy wax maguñu Laurent bi da koy wax. waaw lii tey jooy benn jooy la loolu seen slogan la. xam nga tey ku mel ni ku mel ni Zarko am na slogan boo xam da ngay dégg muy wax mbëri naan laajte wut. xam nga liirul waaw liirul ba pare doo koy jël loolu hmm. slogan la moom kenn du ko dindi loolu ay slogan la rek waaw dëgg la dëgg la ah kon lamb ji kon dinañ yaakaar naa dimanche moom dinañ gis combat bu waaw dimanche combat bu neex combat bu doy waar ci diggante Papa Sow ak Siteu mais li mu la mën a wax daal combat bu gaaye moom hmm. Papa moo ko moom bu diiree loolu ba xam ne am na song bu amee cong te amul jël amaat cong amul jël Siteu la arrangé ñun ñaari mbër yi seen poids yi nga gis nii kan nga kan nga jàpp ni kenn kay kenn ku nekk poids bi mu indi waaw arrangé na ko wala arrangé wu ko waaw mais nag sama xalaat dafa tey lay wax ba tey rek hmm. Papa Sow

bëre boobu nag boo ko seetaanee yow lan ngay jàpp ne moom moo war a moom la Papa Sow di gën di gën a entraîné bi. ok léegi nag moom mooy li ma la wax léegi parce que bëre boobu boo ko xoolee Papa Sow mook Modou Lo da ngay gis nan lay def day def unité daw jël tànk bëtt ko jéem a jargandoo lu jaar ci plan boo seetloo loolu la bëre ak Zoss boo seetloo li ma la wax nii loolu la bëre ak ak ak ak loolu la bëre ak kii euh, léegi nag nga gis ne loolu lay entraînement kon lool lay loolu la fas yéene ak ak ak Siteu. Hmm. boo déggee mu ngi wax na ko sax signaté bi da ngay dégg na ko fi ngay bañ ma jaar fa laay jaar par force plan yi laay jaar te kon loolu la nar a indi quoi. Hmm. léegi làmb ji euh, ki nga xamante ne Siteu bu jëlee combat bi defet fan la ko mën a yóbbu. waaw Siteu nag su jëlee combat bi defet moom wax dëgg yàlla mënatul bañ ku mel ni Diène Kaïré jëlee si combat bi defet mënatul bañ exemple ku mel ni exemple naanaan yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw xam nga doon ko bëgg a jël moom mu ne xoolu leen quoi. Hmm. parce que tey Siteu boo seetloo palmarès bu xaw a bu xam ne risque na ak ak mbooloo moo ko yóbbu ci ci ci yi ci kaw. Mhm. mais lamb ci nag bu ci amee ndam moom kenn mënu koo tàkkale ak ku mel ne Ama Baldé kenn mënu koo tàkkale ku mel ne Boy Niang mais dégg naa duñ bëri. mais Papa Sow moom lamb bu ci amee ndam tey vraiment da koy yóbbu ci ci ci laajte guerre bi nga xamante ne daa wàccoon dana ko mën a delluwaat. ak ñoom ak ñoom xam nga ku mel ni ay ñoom kii ci kaw ay ñoom euh, guy gi. xam na daa wàcc bu daana sëriñ dina mën a dellu foofu. waaw kon kon làmb jooju daal ñaari mbër yëpp ku ci nekk daal defet du la arrangé. non ñaar rek mooy arrangé wu la wax dëgg yàlla dafa arrangé ku ci nekk daal victoire moo la arrangé ñaari ndam mooy ñaari ndam mooy dugg mais tey benn mooy génn. kon kon baax na Cheikh Fall ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax di am kontaan bu baax ci interview bi nga xam may nga ñu ko ci suñu seen bii di suñu xalaat TV xam naa di leen jëlsiwaat gën laa indil ci comme comme euh, membre nga ci écurie Grand Yoff mbooloo. di leen gën a ñëwaat ci écurie Grand Yoff mbooloo ak euh, seen taxawaay ci combat bi saison bi nga xam ne mi ngi ñëw. kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la nga tàggu mbokki internet yi lay seetaan rek. waaw waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax euh, vraiment di gërëm seen xalaat TV yàlla suñu borom yokk seen mën-mën. yokk seen xarañte macha allah liggéey bi ngeen di liggéey ci site yi ñu ngi koy gis. parce que vraiment man mi wax ak sax abonné seen site bi. mais site boo xam dama ciy concentré ay ay xibaar lay jox. ay émission la ay lamb yoo xam ne doy waar li nga xam ne da lay xaw a réeti lamb tey boo fa duggee koy gis. maa leen ñaanal seen site bi dem ba doon télé. amiin amiin waaw dem ba macha allah dem ba ca kaw a kaw et puis di sant sama xarit yi nga xam ñoom laay àndal. dëgg la doomu ndey xam nga ku mel ni ay ñoom Baye Tafa Ibrahima xarit yi may liggéey mi Antracom. waaw comme tey si garage bi fekk sax ci garage fekk ngay liggéeyee waaw. <laughs> bàyyiwuma daal ñu leen sant leen internet ngeen abonné bu baax ci seen nga xam ne di leen jug information yoo xam ne mu soxla te incha allahu rabbi seen abonnement ak seen seen commentaire ak seen j'aime dinañu gën a may doole ñu gën a mën a am confiance bu baax kon ñu ngi leen di tàggu fii ba beneen yoon rek incha allah jërë ngeen jëf